Thiès euh, tey ñu ngi ci tabaski 2021 sur fond de Covid 19 bi nga xamante ne tey tax na euh, bëri na foyer religieux yoo xam ne joxe nañu ay instruction ne kenn du julli julli it ni ñu daan defee ci mbooloo mais dañu ko defee ci biir kër excellence président Macky Sall taxaw ci li ni mel euh, ba moom it bu yëkkati kàddu yooyu tey ñu gis yéen fii à Thiès ñu yàgg gis naturellement président Idrissa Seck bu conseil départemental mais également conseil économique social et environnemental daan ñëw yow tamit nga daan nekk ci wetam tey jii li ni mel da ngeen ko wuute ñu bëggoon rek monsieur ministre nga ñëwaat ci wuute boobu lan moo ko waral mais également nga ñëw ci li nga xamante ne mooy mbasum Covid 19 ñu gis 2020 bi premier vague bi ñëwee génnoon ngeen koppar yu takku ci xeer bi ci biir conseil départemental bu Thiès tey jii li ni mel est-ce que fas yéene ngeen ci sóobuwaat ndax tey gis nañu euh, troisième vague bi ak variant delta bi ñëw nee ni moo gën a metti est-ce que tey euh, alhamdulilah kon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi yëkkati ay kàddu nuyoo ak kàddu ziara di ko jébbal bépp sénégalais ak bépp sénégalaise mais également suñu mbokk étranger yi nga xam ni ñooy dund ci biir Sénégal. di sant suñ borom bu baax bim ñu suturaalee ba ñu fekkewaat tabaski ren ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant suñu borom bu baax a baax a baax di yëkkati kàddu ziyaara di ko jébbal suñu kilifa diine yi xalif généraux yi ci Sénégal yépp bépp kilifa diine bu ne ci Sénégal ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàcc waay comme ni ñu koy waxee mais également di leen ñaanal suñu borom yàlla gën leen bàyyi suñu kanam donc ñaan yi ñaan ci Sénégal yàlla na yàlla nangu yépp te ful ko ñépp ñu bokk ko di di bu yëkkati ay kàddu déwénatil di ko jébbal sénégalais yi di baalu àq bépp sénégalais di baalu àq waa Thiès di baalu àq ñi nga xam ne ñoom laa séqal liggéey muy ci conseil départemental muy ci ministère bi nga xam ni moom la président Macky Sall dénk mais également ñi ma ko séqal ñépp ci politique mais également ci gouvernement bi képp ku ma seqal rek maa ngi lay baalu àq di la baal àq ñaan suñu borom mi nga xam ne moom moom baale moo mën a baale yàlla nañu yàlla boole baal yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla nañu yàlla defal euh, jàmm ci Sénégal yàlla defal def fi tawféex mais également li nga xam ni mooy moo lëmbe àdduna bi muy mbas mi comme ni nga ko waxee sànq te tey mu changé ma nga xam ne lu bëri loo xam ni moom la ñu tàmmoon a gis malheureusement am tey lu bëri loo xam ne mu ngi koy soppi ñu ñaan suñu borom mi nga xam ne moo ko wàcce ci àdduna bi ñuy ñaan suñu borom moom yal na ko yàlla jeexal ak jàmm yàlla na dellu fa mu jóge te bàyyi ñu fi donc yàlla yokk sutura yi donc wax nga ko pour la deuxième fois euh, mën naa ni tabaski tombe ak mbas mi ci àdduna bi mu changé lu bëri nag ci àdduna bi changé comportement yi changé doxalin yi changé même mode dundin yi loolu suñu borom rek moo ko mën a wàcc ci àdduna daa nag moom mi nga moo ko wàcce kon moom la ñuy ñaan donc euh, ba na kon ni nga ko waxee daaw aussi noonu la tombé woon ak euh, tabaski am ay dispositions yu ñu jëloon ren tamit bi tabaski bi di si mu tombeek li ñuy wax troisième vague ci àdduna bi muy loo xam ni ça s'est imposé à nous mais également mu ñëw avec une virulence boo xam ni mën naa ni sax moo gënoon a metti première ak deuxième vague bi mu laaj nag ay taxawaay ak ay matukaay ci loolu le président de la république son excellence Macky Sall demandé à que gouvernement bi yë yëkkatiwaat bépp kuréel ak yépp bépp matukaay bu ñu jëloon ci première ak deuxième vague bi pour stopper propagation pandémie c'est dans ce cadre le président de la république ak kilifa diine yi wax ak. Euh, situation bi ni mu complexé nan la ñuy def ba jëlaat matukaay yi ñu xam ne jëloon nañ ko mooy wàññi daje dajoo bi dajale bi wàññi daje nit ñi mais également wàññi euh, jaxasoo bu bëri bi ak saafonte bi mais aussi ran euh, conscientiser nit ñi pour ñuy respecter les mesures barrières te loolu defe naa ni autorités yi ak kilifa yi ñoo ko njëkk a wane président de la république wane na ko def na ci ay gestes def na ci ay modèle ay exemple suñu kilifa diine yi nga xam ni ñoom lañ yaakaar si ñaan def nañ ko soo gisee sëñ Muntaxa Mbàkke ñu koy ziar di ko ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi lu yàgg-yàgg donc te yokk wéram wane nañ gestes yi muy def ak nu muy wane exemple suñu wéjur sëñ Babacar Si Mansour bu Tiwaawan xalif général ñëpp gis nañu ban mbas mi tàmbali ba léegi matukaay yi ci jël ak taxawaay yi ci am macha allah ñu koy ci sant di ko ci ñaan suñu borom yal na ko yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gu lu yàgg-yàgg si ak suñu kilifa diina yépp ñu gis taxawaay yooyu donc niñ ko amee kon ñun ñi nga xam ni seen njaboot lañ ñun ñi nga xam ni yàlla def njabootu président Macky Sall lañ ci biir gouvernement bi mu wane yoon ñu war a topp ci yoon boobu c'est dans ce cadre la ñu ni ñun tamit muy Thiès ak ku nekk foo mënti nekk yàlla may la nga am fa baat wala kilifteef war nga mën a topp ci tànk suñu kilifa yooyu tracé muy président de la république ak xalif yi nga xam ni xalif généraux yi ne ci réew mi te nga xam ni ñoom lañu yaakaar ci lu bëri donc c'est dans ce cadre que président Idriss Seck moo xam ngeen dafa tukki mais man nga xam ni maa ko wuutu ci conseil départemental bi di ko jàppale ci liggéey bi mais également nekk membre du gouvernement man tamit defe naa ni war naa mun a ak waa Thiès partager ak ñoom yi nga disposition yi nga xam ni kilifa yi jël nañ ko mën leen a wan un exemple wan leen un modèle c'est dans ce cadre ci laa présenté samay excuse daan ni tey peut-être damay def prière à domicile comme ñi ko kilifa yu bëri defee wala nuñ ko digalee te dans ce cadre ci laa jullee sama kër ak sama njaboot ak vraiment sama vraiment ñi nga xam ne ñoom laa bokkal ci kër gi donc wane aussi que vraiment modèle boobu tamit mën na nekk comme ni ko président de la defee ak yenn kilifa diine yi mën na ne modèle boo xam mën nañu dimbali pour arrêter mbas mi war a wàññi ko bu baax a baax a baax te tey Sénégal soxla na ko c'est dans ce cadre lañ ko defee di ña di gën a ñaax rek sénégalais di gën a ñaax sama bopp ñaax sénégalais yépp pour que ñu gën a respecter mesures barrières yi ndax tey ñaar moo fi nekk respect des mesures barrières muy moytu ak moytandiku ak beneen bi mooy vaccination bi te ci côté vaccination bi defe naa ni gouvernement bi ñu ngi ciy def jéego yu am solo président de la république sous son leadership gis nañu. Sénégal jéego yu mu ci def ba am mun naa ni pays africain yi ëpp vaccin ci Afrique Sénégal ci la bokk te loolu ci engagement président de la République bërki dem moo ci mujj jot nañ cent cinquante et un mille donc dose Johnson and Johnson bu jóge États-Unis te xam ngeen ne àdduna bi vaccin daf fi manqué mais loolu lépp su ko gouvernement di def président la di ko def c'est pour aar Sénégal yi ba tax na kon ñoom tamit war nañ ci def it jouer seen rôle jouer seen partition mooy ñu respecter mesures barrières yi wàññi rassemblement bi wàññi saafonte bi mais également ku ñaax nit ñi pour ñu dem vacciner wu ji defe naa ni loolu suñ ko defee yàlla mën nañu defal sutura ba mbas mi dina wàcc ak jàmm incha allahu rabbi ci Sénégal mais rawatina ci àdduna bi yépp beneen bi ci des wax nga ko conseil départemental bu Thiès ci première vague bi gis ngeen taxawaay yi ñu ci amoon donc yàlla suturaal loon nañu li nga xam ne amoon nañ ko comme moyen comme ressource ci conseil départemental bi boo dugaloon nañ ko ci effort yi gouvernement bi doon def ak conseil régional donc de de de lutte contre les les les épidémies nga xam ne gouverneur moo ko doon jiite ak préfet département bi ci mbiru département de Thiès ñu dugaloon suñu loxo loxo dugal bu fës. pare nañu tamit encore pour deuxième troisième vague bi ñuy wax dugalaat ci suñu loxo def daaw defe naa ni defoon nañ ci minimum cent cinquante million de francs CFA. ren tamit pare nañu pour dugalaat ci suñu loxo muy luy jàppale waa Thiès ci mbiru masque ci mbiru matériel gel mais également hôpital régional euh, district de santé yi même CTE bi xam nga équipement yu fu ëpp yàlla def na conseil départemental moo ko jënd pare nañ encore dugalaat ci suñu loxo bu baax a baax a baax ndax lépp lu jëm ci luy aar waa Thiès luy aar waa Sénégal pare nañu luñ ci mën a def ñu def ko ci ndax la santé n'a de prix ba tax na kon ci loolu na ci seen xel dal xam naa ci fan yi di ñëw donc dans le cadre donc des stratégies définies et arrêtées au niveau du commité régionale donc de lutte contre les épidémies dinañ xool ak gouverneur ak préfet département bi nan la ñuy def ba conseil départemental gën dugalaat ci loxoom li jëm ci xeex mbas mi ci département de Thiès ñuy sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah